jàpp ne daal cour suprême bañ na lépp kon atte ba njëkk ba te ñu dëggaloon ko cour d'appel atte boobu moom mooy wéy léegi nag ba tey des na ndax cour cour suprême dafa am i mbaxana léegi bi mooy mbaxana bi nga xam ne moom moo xam mbir mi saytu ko wante am na mbaxana bu ko féete kaw hmm. loolu nag ñun euh, dañuy yebal ñu liggéey bu ñu ne yemale leen fii ñu yem foofu kon boog ñu ngi déglu nan la tuddati euh, Barthélémy Dias ba xam ndax daf ñuy yebal pour que ñu yóbbu mbir mi fi gën a sori nga xam ne fa lay yem wala ndax nañ ko dàkkal. décision bi bettuñu bettuñu on n'est pas été surpris voilà. kon lu jëm ci wàllu dommage intérêt da koy yi moom à pas force parce que décision de justice la yoon moo ko dogal lu yoon dogal nag boo ko boo nangu boo ko nanguwul am na foo am na ay voies et yoo xam ne mën na la forcer ba nga nangu ko. bon euh, en ce qui nous concerne ñun vraiment man sooy xool sax ñun bokkuñu woon ci pourvoi parce que bu pourvoi bi on a été des transferts on a même pas on a on a jamais déposé un pourvoi. ñoom ñoo déposé un pourvoi le pourvoi a été rejeté maintenant ñoom bu ñu xalaatee ni ñoom du ñu koy yemale fii ah c' guerre moom day